ko xam ma gisee la xam lisaan waa xol bi ba mu xam fu ma futtal di xam ki ma gisee la mataam sëriñ Bamba rekk a mata xam moom ki moom xam na ma xam lu di mbiram laa njëkk xam booba ba ma di xam ki ma gisee mata xam sëriñ Bamba kanam leewaana maag moom ci jofeel di ko mébét ba may xareel mu dal may fab yóbbu mu dal may fab yóbbu ki ma gisee la mataam sëriñ bi rekk a mata tegtal ma yoon i njariñam ubbil ma bunti xéewalam burxal ma boo ci ki ma gisee la mata ki ma gisee la mata tayee ma jar ba ma ni jar fegal ma kor sàmmal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ki ma gisee la mata di ma defar te di ma far te ma far mu di ko far te lu ma far dal di ko far ki ma gisee la mata xam di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw teeweel ma xew luy mën a xew fi ma gisee la masaam ku jëm fi man di man la jël mu boole kook lu koy la lu gën mu fab jox ma ma ki ma gisee la ma taxam lu ma ragal mu ne ko cas sànni ba dootuma ko gis labal ko mu ni ki ma gisee bi tër ñi dun bi ba ma gis na muy naxee te ko gis jox ko gannaaw mel ni kurus ki ma gisee la ma taxam wan ma lool wan na ma bés natteel ma leen ci sama bis misaal ma leen ba ma ni mbas ki ma gisee la matam suñ bamba rek a mataxam yaramu xol bi dafa fees jinaa ba mel ni lu fees cofeel gi wal na ko mutis tiis fi ma gisee la mata xam sëriñ bi rekk a matam tibub cofeelam dafa fees ci man di fokki ak yees ci sama xol ba dootu rees ma gisee la matam moo tax ma def bu ma nee ci sama xol baa mu ne sunu diggante ne depees ki ma gisee la mata di ma xamal te duma fit dolli ma xam-xam bu rafet dolli ma gëm dolli ma fit fi ma gisee la ma taam di ma yaral boppam ma yëg yar ba ci man ba ma di yëg lu ma yëgul ne lu ma yëg ki ma gisee la ma wan ma jamono ni mu mel jàngal ma xel di ma bindal ci alliwuy mahfuusi xol ki ma gisee la di teew ma teew ci peyi xol gise mu taal ci lampi xol jum ma wan yoon wu ñu xal ki ma gisee la ma taxam jeqeel ma xel ràññeel ma xol xol du ne xel xel du ne xol xola di xol xela di xel ki ma gisee la ma taam ruujal ma ji di ma bayal xiin lu mu xiin ci niiri xel taw lu mu taw ci toori xol ki ma gisee la ma taxam mu ñor di xam-xam yu rafet xam-xam yu àndaale ki xam-xam yu dul yooyu rek ki ki ma gisee la mataam na ma xam lu rafet ba du ma yër lu lu rafet te du ma gis lu lu rafet ki ma gisee la mata xam may na ma déggoog moo mi wax ci ay waxi nam yu ma wax samay waxi nay na mu wax ki ma gisee la mataam jaay waxiinam yu ma wax samay waxiin lay na mu wax ki ma gisee la mataam wan ma boppam na mu day yàlla ko xam moom la ko may te wóor naa ni mooma ki ma gisee la mata wax na mayit mana ko yow a bu ne ko yow ma ni ko yow ki ma gisee la ma buur yàlla may na maw kañam ma di xasanam fu ma jëm di tarjumaani làmmiñam ki ma gisee la matam li le du ci man dafay ngërëm lu war ci man te may gërëm ki gën ci man ki ma gisee la mata xam mayam yi yaana bu nu cofeel gi rew na sunu xol ba duggi reenam sunu xel rootul lu dul wanew taggam am na ci yooyu dunu ko wax am na ci yooyu nun mu ko wax ak ba ko ñooya moonu wax lay daggi xol tey dolli gëm wuutu na saa baya ñëwey ca la bokkoon te mujj wey fab nu nu ànd ak moom di wey dana nu wey fi kanamam da koo jëkkal far mu jël muy kun mu jël tey kun jëkkal taal bu fayul la jafal daay gu fayam